kàddu yi rafet na te jub na solo si nag man sama kàddu du yaatu ndax waxloo naa ñi ma gën a doy sama bopp ñu seen kàddu gën a rafet sama kàddu eh, Sénégal réew la mu sukkandiku ci ñaar yëf benn bi mooy valeurs yi cosaan li ñuy wax les valeurs traditionnelles mm-hmm. fi sunuy maam bàyyi woon jëkk lislaam di fi ñëw dafa amoon ngor ak jom ak fit ak fulla ak mbaax ak mbañum rus valeur yooyu moo taxoon Lat Joor ni duma ma dese ak ndameel mu metti ma daw moo taxoon Alburi Njaay résisté taxaw moo taxoon Matar Ndumbe Joob ak njabootam résisté mm-hmm. waaye valeur yooyu moo taxoon buur siin kumbandoo fen Diouf keroog ba ñu tuumaalee Serigne Touba terroriste ñi daa làqi arme day préparer guerre day waajal jihad convaincre ci sëriñ sëpp ñu d'accord ci buur siin kumbandoo fen Diouf du woon jullit du woon jullit de booba tuubagul taxaw lànk ni Serigne Touba nii li ngeen ko tuumaal amul ndax man gëstu naa ko ba mu leer lu waraloon loolu ngor lu waraloon loolu jomb lu waraloon loolu mbañum rus mbañ rus da di da di jikkoy gor yonent bi sallallahu alayhi wa bi jullit ñi sonnee ca makka da leen ni dem leen xabasa làqu ji fa su ngeen demee di ngeen fa bekk fekk buur boo xam ni bokkul ak yéen diine nasaraan la ngeen di jullit waaye maa ngi koy seedeel ni du tooñ kenn te du nangu ku tooñ fi wetam gor du tooñ te du nangu ku tooñ fi wetam mu di la seetaan loolu gor du ko nangu kon bu ñu jëloon suñu société traditionnelle rek danañu bañ tooñ ba mu jaral ñu lim jaraloon suñu maam yu dem Lat Joor patriotisme moo tax ñu rey ko pourtant mënoon naa def ni ñëpp def mm-hmm. jébbal tubaab bi ngànnaay yi négocier ñoom ñu di ko touché di ko di di kii Serigne Touba patriotisme moo tax mu génn réew mi mm. yonent bi patriotisme moo taxoon mu gàddaay awa muxriji huma jàng nañ ko awa muxriji yahum ba muy wax war a xatimu nawfal bëgguñoo guddal foofu waaye daal bu ñu demee nag ci wàllu diine lislaam yàlla daf nu wax mi jaaduwul ci yéen niti diine yi ngeen taxaw di seetaan aw askan ñu di leen not di leen néewal doole lépp lu leen war a nar a génne ca noteel gaa néewal doole ga ngeen taxaw di ko seetaan ba ñu not loola ñoo xam ni dem nañu bay jël gaal gi di dem di génn réew mi yàlla wax na ko ci alxuraan wa maa lakum laa tuqaatiluuna fi sabilillah lu mu ci teg wal mustadaafina min ar rijaali والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا nitug diine daa war a wallu ji néew ji doole loolu la nitug diine war a def amul beneen politique bu nitug diine war a def wallu ji néew ji doole mm-hmm. wa maa lakum laa tuqaatiluuna fi sabilillah dafa mel ni ba ko yàlla di laajte dafa jaaxle ci lan moo tax nit bëgg a wax ni gëm naa yàlla ba pare nekk ci senegal jamono jii Ousmane ko nekk fi ñu xañ koy àqam di ko tooñ di ko persiki ko di ko dugal ci mbir di ko ci génn nga taxaw mënoo caa wax mënoo caa ñaan mënoo caa wax dara mënoo caa def dara loolu fuñ ko teg fuñ ko teg alxuraan ay wax kon loolu moo waral nun doomu daara yi de gisuñu intérêt wutuñu ko buñ doon wut intérêt laneen la ñuy def waaye dëgg lañ bëgg a àndal te dëgg googu nag coono dong nga ci nekk ñun ñi kenn ku ci ne am na lu mu daan am xañ nañ ko ko ndax loola ndax position yooyu am na lu mu daan am ci réew mii ci ay àqam xañ nañ ko ko ndax position yi mu jël waaye ndox su fekkee dëgg moonu tax di def nanu ñeme dëgg ba te yàlla rek tax te yàlla rek tax nitu daara nag li mu am mooy discours bu rafet buy gindee buy leeral xel ak ñaan ñaan nag boo ko waxee am na gaa ñoo xam ni dañ koy woyofal am gaa ñoo xam ni comprendre waaye Sénégal ñaana ko tabax aajoy nit yi di faju ñii di falu ñii di folliku ñooñu tey ñoo ànd ak Ousmane Sonko te lañ doon ñaane mi ngi fi te ñetti sart yi tax ñaan di nangu ñetti yi yépp ñëw na dajane ci mbir mi ma wax la ñetti yi ba ca jiitu mooy yàlla nee na boo demee ba bunt yépp ubbu fi sa kanam ñi nga àndaloon ñépp war la ñu ubal la bunt yépp ni ko doo fi jaare doo fi amee benn sañ-sañ ñépp noonu la taxaw ni la doo fi amee nee na booba boo ma tàllalee loxo yàlla nga xam ne maa yàlla amma yujibul mutarra ida daahu wa yakshifu suua wa yajalakum xulafaa al ard yàlla moo koy def duaaul muttar ba ca des imaam Dramé tudd na ko mooy duaaul mazlum mooy ku ñu tooñ te tooñ gi moom duma ci jaaraat Cheikh Baara leeral na ko imaam Dramé leeral na ko ñépp xam nañ waaye nag yàlla dafa garanti ni ku ñu tooñ bu doon ab yéefar ka ñu tooñ ka ko tooñ dib jullit te jullit sax du tooñ misaal la rekk waaye tooñ ju ka ko tooñ dib jullit danaa dimbali ka ñu tooñ ci kaw ka ko tooñ ndax yàlla dafa maandu te dafa bëgg ku maandu ñetteel ba bu am solo boo xam ni ñu bari dañ koy fàtte mooy duwaa u axin li axiihi an zahril xëy Ousmane Sonko ñi koy ñaanal ay junni junni doom aadama man damaa wax lim bi ma bi ma jàpp bi ma ñi may contacté yoo xam ni kenn ci ñoom mësta dajeek moom xamuñu ko xamu leen waaye ñaanu pas-pas xam nga benn waay ñëw yëkkati dara jox la nga di ko ñaanal bokkut ak nga gis benn waay nekk ci dëgg wéet ca ngay jullit di bëgg lu baax ñaanal ko te yàlla tax ñii ñaanal Ousmane Sonko ñi ci ëpp xamuñu leen mën naa cité tey masalan fii ma toog kilifa diine yi sëñ Cheikh bi defe naa ñun ñëpp yëg nañ ko xam nañu mooy kan. xam nañu lu mu yor ci daara ci jàng ak fu mu féete nu mu war a nekke lu ñoŋ Serigne Fallou Chouaïba xam nañ ko gis nañ kàddoom Serigne Habib si Dabaax gis nañu taxawaayam ay ñaanam. gis nañu sëriñ Fansu Boña ci Bignona muy kilifa goo xam ni ña féete ci wàllu sit yëpp ay taalibeem lañu ma ngay dajale ay imaam ay nitu diine di ñaan boo demee jaamal moo fa nekk boo demee xurdan ci saalum moo fa nekk boo demee kër suñu maam Ahmed Dem Sokone waa njabootam woo ma xamal ñu ni ñoom ñu ngi ci ñaan mhm. muy Sokone boo demee Makka Koulibantang ñoom Yaakuba saawoo ak ñañu àndal ca waa Màkka Kulibantan sëriñ su ñooñ ñu xam taxawaay ya ñu am nga ñëw cees gi sëñ Gaye Njëgeen nga ñëw Touba sëriñ maam Thierno Mbacke ak ñamu àndal ak Daaru Moxti sëriñ Abdou kenn waxu ko moom xam nañ ni moom mooy sëriñ Ousmane Sonko ci ñaan la mas di taxaw di ko defal ñooñu ñëpp tey dama junj rek ñi nga xam ne ñi ngi ñuy woo di ñu wax ni ñu ngi def nangam te biñ ñuy woo jubluwuñ ci lu dul won ñu ne li ngeen di woote ñi ngi ci ñooñu tey jii amuñu lu dul gërëm leen parce que xam nañ ni fii yëf yi toll loxol yàlla jooju ci dugg xam nañ seen loxo génn ci te loolu la Cheikh Bara doon leeral léegi bu doon Ousmane Sonko kuñ mën a sànk la sànk nañ ko bu yàgg su doon ku àndut ak yàlla àndut ak dëgg àndut ak nit ñu baax ñi lañ doon wut ci moom am nañ ko bu yàgg kon loolu ñooñu dañ leen di sant di leen gërëm di déclarer nag li nga xam ni moom lañ bëgg moo tax ñu daje kuréelu doomu daara yi yépp ànd xalaat ni bis bii ñu toll fii ñuy yëkkatee suñu kàddu ba keroog guddi àjjuma ji di wéy ba ñuy xëy ci àjjuma ja la 17 war a rotal àtte ya diggante booba dañoo war a dellu ci suñu manin dellu ci suñuy wayndere dellu ci suñuy kurus dollu ci suñuy téere ku nekk yaa xam la nga daan ñaane jële ko ci alxuraan wala jële ko ci njàngale mag ña yàlla di ca def nangu te muy ñaan yu set yu ñu xam ni ko suñu rakk ji waxee jibaruñu jibarantewuñu fayontewuñu njibar waaye nag qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa leeru yàlla leeru dëgg fu mu tàbbi neen dana fa jóge kon loolu mooy solo si ñu ngi koy déclarer ànd ko kuréel bi yëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala nangu ko ñaan itam yamul ci 46 département yi ci diaspora bi defin wi itam sëriñ bu ne xam na nam muy ñaane duñ ko jàngal na muy ñaane waaye ku kuréel bu ne fa ñu nekk ña fa gën a jegente mën a daje fi barab moo xam daara la jumaa la nuñ ko mën a defee waaye ñu ànd ko ci xol bu sedd xol bu sell ak nërmeelu ci kanamu borom bi delloo ko suñu bopp delloo ko suñu waa ji neex naa ñaanal parce que moom loolu la gëm Ousmane Sonko waxtaan naa moom bis ci mbiri ñaan mu ni ma Oustaz Tahir man yonent bi laa gëm mooy sama leader mooy sama modèle Machiavel gëmuma ko Jean-Jacques Rousseau gëmuma ko Montesquieu gëmuma ko ñoom donte ñoom ñëpp jàng naa leen parce que intellectuel la waaye ki ma gëm muy sama modèle ma bàyyi ko xel di jéem a dox doxinam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa billaahi moo ko te dara ci àddina jaralu fen kooku gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag kooko mënta gëm lu dul lu baax kenn du gëm yonent bi di weddi sëñ Touba déedéet kenn du gëm yonent bi di weddi Alaaji Malick mënta nekk kuñ la ni gëm na yonent bi te bëggul mag ñu baax ñi àndoon ak yonent bi gëmul yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon kooku lu baax loolu mu gëm ñun njabootu mag ñooñu nga xam ne yonent bi lan am mooy kilifa suñuy kilifa amuñu lu dul taxaw delloo suñu bopp yàlla nag ñaanal ko te jëm ni suñ borom tax loolu maa ngi koy euh, ñaan mbokk yëpp di leen sant bi leen gërëm di ñaan yàlla subhaanahu wa taala li ñu ñaan yëpp yàlla nangu ko Sénégal nekk réewum dellu fam nekkoon élection yàgg na fee am mbër yépp dugg ci làng gi ku ne ña yaakaar nga dem ca wax ak ñoom wax ay programme ku ci adhéré nangu ku ci adhéré wul dem ca lam adhéré ka ñu bëgg ni jàpp nañ ni réew mi moom lañu bëgg ñu fal ko te gis nga nag réew ku légitimul mënoo koo développé mm-hmm. alxuraan nee na réew soo ko bëggee développé da nga koy teg ci loxol koo xam ni bu wootee nit ñëpp ñëw loolu la alxuraan wax su fekkentee ni danga nga impopulaire mënoo dajale nit ñi mënoo leen a defloo mënoo leen a dindiloo mënoo développé réew waxuma la élection de développé réew laa wax mënoo ko def fan la ko yàlla wax Zulqarnayni yàlla nee na maa ko jox nguur ba mu mat sëkk yàlla moom bu ko joxee jox bu la joxee jox na la mu dem ci aw xeet xeet wa ne ko ñun de dañoo am benn maal bu metti mooy yaajuuj ak maajuuj dañ fee nar a buñ fi ñëwee danañ yàq te ñu bëgg lu dox suñ digg ak yaajuuj ak kon ñooñu loolu mooy nekkoon seen problème Zulqarnayni ni leen ñoom ñu ni ko fa hal naj'alu laka xarajan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda dañ koo wax ni dañ lay jox impôt ngir nga man ñoo defal ab miir bu dox suñu digganteeg Yaajuuj ak Maajuuj lu leen Zul Qarnayni na tontu mm-hmm. du ma ko def man sama jëmmi bopp damay ànd ak yéen peuple bi def ko kuy développé am réew da ngay ànd ak peuple bi a'inuunii bi quwwatin aj'al baynakum wa baynahum radma a'inuunii bi quwwatin Ousmane Sonko nee na a'inuunii bi quwwatin ànd leen ak man ñu bay dunde xiif jóge fi ànd leen ak man ñu doxal administration bi càcc jóge fi mal gouvernance jóge fi ànd leen ak man ñu doxal marché public yi dëkk bi tege ci yoon ànd leen ak man ñu defar ndaw ñi yar leen ànd leen ak man ñu defar système de santé bi ainuuni bi quwwatin ajal baynakum wa baynahum radma salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam.